monsieur le ministre dellusiwaat ngeen ci njëgu mburu bi léegi euh, baguette bi mi ngi jar euh, fanweeri dërëm léegi ñu buggoon xam rek naka ngay leerale matuwaay boobu oui alors euh, xam nga kii mburu mburu mi sama mbokk njaayeen yi mm. ak tukkuleer yi effectivement ñoo ci ñooñ ci gënoon sonnal xam nga il fallait que ñu seet lan mooy bees bu significatif bi soo xoolee sur mburu dafa nekk benn denrée boo xam ne en réalité dañ koy consommer le matin à midi le soir ndax dafa nekk loo xam ne euh, prépa dafa yomb soo demee ci tàngada yi mburu nga fay fekk le petit déjeuner mburu nga fay fekk à midi les sandwichs même dans dans euh, quartier yu bëri foo dem rek en fait c'est un aliment de de base en réalité comme c'est comme le riz en réalité sauf que soxla wool togg ko loolu moo waral ñu waxtaan ak boulanger yi ak meunier yi ñoo ñu nekkoon le plus difficile ndax dañu dem ba war ko laal le prix du blé yokk le la tonne de kii mu ngi doon jaar deux cent quatre vingt dix euh, euros temps yi rek y a juste un mois léegi mu ngi trois cent mu ngi kon d'ailleurs di yéeg dem vers trois cent vingt euros or blé boobu en réalité ñun dañ ko maîtriser wul parce que un produit boo xam day jóge ci loolu moo waral amoon on a beaucoup de difficultés pour trouver consensus entre borom euh, meunier yi ak boulanger yi finalement nag dañu waxtaan ak association yëpp waxtaan ak meunier yi pour ne leen finalement vingt cinq francs yooyu euh, euh, euh, dafa nekk loo xam ku nekk da ci war a dugal loxoom ñun état on va subventionner meunier ñu wax leen ñu jéem a wàññi li ñu mën a wàññi boulanger ñu wax leen ko avec toujours la même approche mooy bëgguñu ci lor nii les boulangers nii les meuniers ndax meunier yi fekkee ne les les grands moulins tous ces entrepreneurs qui font venir le blé dafa am ay emplois dañu am ay charges or suñu vision de notre gouvernement mooy une économique on a économie boo xam ne acteurs yi muy le secteur primaire agriculture le secondaire et le tertiaire alors dañ ko war a fexe ba ñu sauvegarder ko man nag maa yore secondaire ak tertiaire loolu moo waral tertiaire muy les commerçants ak tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur man leen yéen il faut ngeen def un effort léegi euh, industriel def un effort et nous en tant que état ñu def un effort loolu moo tax on était d'abord à 160 francs la semaine passée dégg ngeen euh, dafa am benn problème mooy les pièces la pièce de 10 francs mhm. ne boobu mhm. nga xam ne problème la mhm. et finalement on a décidé que ñun au niveau gouvernement nous allons maintenant demander à chacun de faire des, efforts et finalement ñu indi ko à voilà te loolu soo jëlaatee euh, vingt cinq francs yooyu pour une famille de dix vingt personnes muy cinq miches de pain wala yeneen day commencer am signification nga defar li ñu li nga wàññi ci ceeb bi yokkaat euh, xoolaat ko ci panier ménagère bi en fait c'est comme ça qu'il faut raisonner pour nga gis ne finalement la baisse là dafa am véritable impact mhm. ci euh, le panier de la ménagère euh, léegi nag ngir ñëpp dëppoo ci ci charte wàññi wàññi dund gi naka ngeen di def da ngeen di am benn ay ñi nga xamante ne rek dañuy saytu mbir mi ci ci marché yeeg fépp fi nga xamante ne foofu la ñuy jaayee wala absolument ñun en fait dañoo jël ay mesures yu bëri la première mesure mooy euh, ce qu'on appelle la communication mm. vous allez voir nañu kon ne communiquer pour won nit ñi les prix euh, ñëwaat yéen waxtaan ak yéen y aura beaucoup de communication sur ça pour que nit ñi respecte les prix aussi bien à Dakar qu'à Kédougou mm. ça c'est beneen bi nga xam dañ ko bëgg a def aussi mooy euh, dañu am ce qu'on appelle les commissions régionales de consommation ñooñu aussi nañu réuniru pour seet transport bi nga xam ne da cee nekk euh, pour ñu war nekk à Kaolack xam nga dafa am un prix sur le transport. Mm-hmm. ñu d' accord ci loolu. def loolu mooy li nga xam moom la ñu war a def tey war ko def suba war ko def temps yëpp ba finalement loolu moo tax ma ne les prix entrent en vigueur à partir de lundi. Mm-hmm. lundi prochain. incha allah le le 24 ci lay entre en vigueur. Mm-hmm. troisième élément de contrôle bi mooy on aura un numéro vert. nga xam ne fekkee ne da nga gis sa que le prix bi nga xam moom la ñu fixé muy les 150 boulange di ko jaayee à 160 francs mën nga alerter wax ñu ko. troisièmement li ngeen xam aussi mooy le ministère de du commerce et de l'industrie dafa am mille volontaires. yoo xam ne c'était les volontaire donc euh, du contrôle des prix mhm. ils ont des systèmes euh, de de géolocalisation nga xam ne fépp fu ñu gis ne prix ceeb dafa yokk wala prix huile wala dañ ko def de façon illégale il peuvent aussi le signaler mhm. donc mesure yu mel noonu la ñu bëgg a jël euh, waxtaan ak nit ñi boot la ci bàjjenu gox yi boole ci chef de quartier yi pour que effectivement ñu gis mais bu leen fàtte ne aussi on a les contrôles des prix mhm. les contrôles des prix c'est 33 services dans tout le Sénégal yoo xam ne ñu ngi dépendre suñu ministère ils partout yoo xam ne ñoom seen seen rôle mooy contrôler les prix. Mhm. et soo defee infraction bi effectivement euh, yoon day daal day daal sa kaw. Euh, léegi est-ce que mën nañu xam impact bi ci wàllu koom gi ndax ñenn sax nee nañu euh, nguur gi bàyyi na lu toll si juróom fukki milliards ak ñett. dëgg la dëgg la xam nga pour nga wàññi prix ñaari levier nga nga jëkk seet mooy la TVA la taxe la valeur ajoutée beneen levier mooy les droits de douane. ñaar yooyu moom la ñuy épuiser ba mu jeex tax c'est-à-dire état bi dafa renoncer ci TVA wu blé TVA lépp loo xam ne ay céleri yi ba destuñu dara alors on a on a fait jouer ces leviers là waaye beneen levier bi mooy subvention bi on a décidé que même si tu fais ces deux leviers là du doy donc il faut nga subventionner loolu nag moo tax suñ ko calculer lépp ça nous a coûté cinquante trois milliards cent millions loolu euh, xaalis bu bëri la ci état boo xam ne bi ñu ñëwee ci nguur gi xam ngeen ne on a des difficultés ndax kees yi effectivement fekk ci xaalis boo xam ne mën nañu permettre ñu continuer activités yi mais euh, un état day jël ses responsabilité dañu seet askan wi nga xam ne moo ñu tànn nga xam ne dañoo sonn Sénégal yi ku ne xam ne dañoo sonn ñooñu il fallait que ñu def un effort même su dee budget bi euh, c'était pas prévu atuñu kon ci loolu il a fallu donc ñu ñu ñu def loolu mais du yem foofu parce que dañoo gis ne euh, mën na am dans les mois qui viennent euh, ñu amaat ceeb moins cher parce que là nous sommes en train de réfléchir sur benn appel d'offres bi ñu bëgg a def au niveau international sur lu tolloog un million de tonnes de riz war a jóge fépp et là ça nous permettra peut-être ñu gën a wàññiwaat bi parce que soo defee appel la loi de l'offre et de la demande da gis ñoo xam ne dañu lay jaay ceeb à moins cher loolu loolu laa bëgg pour fexe ba ceeb bi gën a euh, euh, moins cher euh, fekk fexe aussi ba ceeb bi ñu mu bañ am aussi un problème de de rupture de stock parce que benn bi mooy nga am le riz mais beneen bi mooy nga am stock de sucre Sénégal nag chaque fois dañu am 300 000 tonnes de sucre sur les 1 million 200 qu'on importe